alxalifatul am li taifatil muridiya di ko jot lil ndokkeel gum ndokkeel jullit yépp ñi mbokkal lislaam ji ñépp ñi mbokkal bis bi ñépp ak fu ñu mën a ne ci xaalam bi mi ngi leen di ndokkeel di feddali bokk gi di fokk fekk feddali li ñu yàlla boole innamal mu'minuuna ixwatun jullit yépp yàlla dañoo lëkki ni ñun ñépp ay bokk lañ fa aslihu bayna axawaykum kon nag waxtu wu ne de leen defar seen diggante mi ngi maa ngi leen di nuyu ci turam fas yéene waxtaan ci bis bi ak solos bis bi fas yéene leen cee waxtaanal tuuti nag ci li cosaan bis bi ak liñ ci mën a jànge tam tam njëriñ danañ ko gàttal nag ndax ci tabaski lañ ne waaye li nga xam ne moom lañ mën a jànge ci bis bi mooy Ibrahima dafa doon koo xam ne xaritub yàlla bis doon ñaan nag yàlla may ko doom ñu di ko fexeel waaye mu ne maa ngi dem ci yàlla fa araadu bii kaydan fa jannahum lastu leen wa qaala inni zaahibun ila rabbi sayahdiin maa ngi dem ci yàlla yàlla dama dana ma gindi ba mu demee mu ne ko rabbi habli min as-saalihiin may ma ci may ma ci gaa yu baax yi yàlla nag fa basharnaahu bi gulaamin xaliim ñu daal koy may ab fere bu bu lewet bu neex deret bu baax moom mu daal wax ak moom nag ne ko man damaa gént xaala yaa bunayya inni araa fil manaami anniya adba'uka fanzur ma satara mu ne ko doom ji fekk doom da ko bëggoon lool mu ñaan yàlla mu may ko ko ba noppi nag mu gént ne da ko war a rey bi mu ñaanee bi mu géntee nag wax ko doom ji doom ji ne ko xaala yaa abati fal maa tuumaru bàyyi defal liñ la digal sa tajiduni insha allahu min as-sabirin da ma fekk ma bokk ci ñi dàq muñ ñoom ñaar ñëpp ku ne am dabtu nafs mooy yeewal sa bakkan ba la nga war a def rek ngay def la nga wërti def doo ko def moo tax waxtaan wi tey moo ko def ci dabtu nafsi rek tënk ko ni ñuy def ba ni ko lis ni ko borom xam-xam waxe mu tënkal leen ci dara rek ci ni ni lislaam bëgge dabtu nafsi doom ji saalitut baay bi saalitut te te lañ bëggoon yàlla defal na leen ba ñoom ñëpp bañ nangolee yàlla ndax yàlla day seet rek ba xam fu sa kattan gëm toll fa lama aslama wa tallahu lil jabin wa naadina ya ibrahimu qad saddaqta ruya inna kadalika najzi al muhsinin inna hada la huwa al bala'u wa fadaynaahu bi dibhin azim yàlla yebal jibril jox ko ab gàtt bu mag ne ko jote ko loolu mu indi solo sa tabaski dabtu nafsi googu nga xam ne nag day loo xam ne borom xam ne dañ ciy bind lu bari dabtu nafsi mooy takk sa bakkan takk sa bakkan ba du buur noonu lañ ko mën a ci wolof takk sa bakkan ba du buur du màmm yeewu sa bopp ba du màmm du buur mooy dabtu nafsi wala nga ne mooy mer muus li Seydou Xaadir daa wax naan lu jafe la mer muus nga xam ne lii la naqari kenn du ko xam ci yow dabtu nafsi moom la ñuy wax léegi rek ritini mooy mooy nga yeew sa bopp ba doo doo wax loo wërte wax doo def loo wërte def lislaam da koo fonk lool gis nga ibrahima bi mook mook doom ji mook ismaahila ku ci ne tolloon nga foo xam ne lu ne mënoon naa xew ci sa diggante ak yàlla waaye dangaa takk sa bakkan ba dara yënguwut dott sa bakkan ba munta buur munta màmm loolu na loolu lañ koy firee ci wolof bu ko defee nag boroom xam-xam yi dañoo wax ne dabtu si mooy li jumtukaay bi xiyaas sa ngëm ci yàlla fu mu toll daa am benn baat boo xam ne arab yi ak euh, nasaraan yi ñoo ko bokk thermomètre thermomètre ngëm mooy mooy mooy mooy mooy na si dott sa bakkan ba du jëkk ba du yëngutu bu ko defee moom lañ bëgg a waxtaane tey dott ndax li tax lislaam bindkati lislaam yëpp dañ cee bind wax li ci yonent bi wax ndax dafa doon sëñ bi bind ci lu bari ndax dabtul nafsi ki njëkk a rey doomu aadama ci ak kaw suuf muy xaabil muy haabil eh, muy xaabil tooñ jëm tooñ haabil ñaari doomi aadama yooyu ci dabtu ñàkk def dabtul nafsi moo ko teg watlu alayhim naba ab na yaadam bilxaqi id qarabaa qurbaanan fa tuqubila min ahadihima walam yutaqabal min allaaxari qaala la aqtulannaka qaala innama yataqabalu llaahu min almuttaqin la in basatta ilayya yadaka li taqtulanii ma ana bi baasiti yadiya ilayka li aqtulak inni axaafu llaaha rabbal aalamiin inni uridu an tabooa bi ismi wa ismika fa takuwan min asaabi neeri wa saalik jasaa zaalimiin alxuraan dafa nettali ne ki njëkk rey nit muy benn doom ñaari doomi aadama yi dañ doon jaamu yàlla ñu nangul kenn boo booy jaamu yàlla daa am lu looy teg fee bu dara ñëwee lekk ko ñu xam ne sa yàlla nangul na la bu bu loola dara ñëwee lekk ko lu jóge ci asamaan si ñëw jël ko bu fekkee jëlu ko kenn nag bañ bañ bañ nangulee kii te nangul kii kee merce ne ne mbokk mi danaa la rey ah mbokk mi ne ko ah man de boo tàllalee sa loxo ngir rey ma man duma la rey ndax man damaa ragal yàlla te ragal naa ne boo ko defee bàkkaar bi yëpp dana wàcc sa kaw nga bokk ci waa sawara waaye bakkan bi ñàkk gi mën a téye bakkanam fa tawaxat lahu nafsuhu nafsuhu xatla axiihi fa xatalahu bakkanam ginnaaw téyewu ko bakkan daal koy xëcc mu rey ko fa asbaha min alxaasiriin mu daal di mokk mokk ci ñi mu daal di bokk ñe perte moo tax kenn du yéem ah, borom xam-xam yi dañuy wax ñaawalu ki ki ki ki nit ki nit ku am maanaa ñaawal giñ koy gi nit di tooñ kenn du ko yéem waaye yaa li ñuy yéem mooy tooñ giñ koy tooñ mu ne mu ne jéggal naa la ah, loolu sëñ bi sëñ bi sëriñ Tuubaa am doy na ci misaal lim li ko tubaab bi def lépp bi mu wàccee géej gi géej gi ba mu dafa ñëw dane xafawtu xanil ahdaay turran li wacci man na fa am li xëyri sarmadan la sut bu ko defee nag ngeen xam ne loolu ku ko bëgg am dattu naf si ku ko bëgg am foo koy tàmbalee mooy yar yar ndax yonent bi dañoo jàngal ne dañoo jàngal ne wa atbahi sayiata alxasanata tamhuha wa xaaliqi naasi bi xuluqin hasanin lu ñu la defal ci lu bon danaa ko gën a firiwaat ci kanam lu ñu la defal ci lu bon rek yow fayal lu baax ndax kon da koy far loo gis ci lu bon rek fay ko fare ko lu baax te di nit ñi ngay jikkoog ñoom jikko ju rafet rawaahu tirmisi yu wa daarami yu boo ko defee nag ngeen xam ne sëñ Tuubaa nag loolu lu ne mbir mu ne rek jàngale na ci mu ne jàng mu yar boobu nag moo tax mu ne waminhu bokk na ci teggin tarbiyatu kal awlaada li kay yanaalo baxdaha rashada yar gone yi moo jiitu ci boo bëggee takk sabakan boobu ñuy wax boobu ñuy jàng lutfu bistaxiiri wa misluhu tabjiilu kabiri bokk na ci mag mu ne mag gone goo gis dee ko yërëm waaye gone gi gone goo gis ne màggal mag te di ko wekk wa jaxlu mislika ka nafsika stiwa wa xayru si mi mastaqaamatan hawa koo gis def ko ni sa bopp ak lépp leneen loo gis lu baax rek ne ca te xam ne loola ci yar la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool ci dabtu nafsi am na boo xam ne daa gis ku ñu asajul ne ko inna fiika xuslatayni yuhibbuhuma allahu alxilma wal anaat asajul qays gis naa ci yow jik ñaari jikko yu xam ne yàlla bëgg na leen lool muy neex deret ak lewet rawaahu muslim wa tarmisi wa ibnu maaja sallallahu alayhi wa yar waa këram ci lewet ba ba bu asbatu ñëwee nga mën a xam fi ngay jaar nga xam ne jàng lislaam dañ cee jàngale da cee jàngale ne faka fakama taxlumu taxlumu naasu aleyk noo lewete rek nit ñi noonu lañuy ñuy lewete ci yow noo neexee deret wa yahdillahu qulubahum laka te bu waaye yàlla day fab xol yëpp ñu wut si la waaye wakama taxdibu laa tara min qulubi nnaasi illaa xaswatan boo boo naqaree deret koo jëflantil ku ne naqari deret la lay woon moomit loolu la lislaam jàngale loolu yàlla bi muy jàngal yonent bi da ko njëkk wax ne walaw kunta fazzan ghaliza al qalbi lan faddu min hawlik boo doonoon ku dëgër ku ñagas ku ku dëgër xol kon mbooloo mi la booleel dana tasaaroo ci sa sa loxo la ko wax kon da ko aaye da ko aaye loolu kon ana ana nuñ mën a def ba dabtu nafsi ñu mën ko am mooy yii may wax maarifatu ma alaatil umuri mbir mu ne fam nar a mujj da koy teel a xam moo la mën a dimbali ci ngay taf ngay ngay ngay ngay nga am dabtu nafs ndax inna taaruf ala xawaaxibil umuri wa itqaani xaahidatil masaalihi wal mafaasidi min ahsami al asbaabi alladi tamnau min altasarufaati alxaatiya mbir yi boo xamee fa muy mujj xam la ca mën a yàqoo ak la ca mën a defaroo bokk na ci sabab yi tax doo juum te loolu alxuraan dañu koo jàngal xaahidatu mooy li ñu alxuraan jàngal mooy yàlla daa wax yonent bi nekk wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan ci suratul anham bul nga neel jullit ñi ñii di jaamu xirim seen yàlla yooyu leen leen ŋàññi ndax bu leen leen ŋàññee dañuy fayoo ci ŋàññi ma man yàlla kon gis nga xalaat gi nga xalaat mujj mi fa muy mbir ni ci yàlla jàngale yonent bi ñiy jaamu xërëm nga xam ne ku ne xam ne li ñu ne baaxul mu ne bu leen leen ŋàññi ndax bu leen leen ŋàññi tontu te liñ leen tontu man yàlla la ñuy nga bañ nag loola am tax lii nga waroon ko def nga bañ ko def loolu loolu noonu la alxuraan jàngale ndax fiir ci suñ diine mën naa tax nga gis lu ñu def lu naqari yàlla nga jëfandiku ca loo xam ne fokk xam nga sëñ Tuubaa den wala sa mufdiyan li sarrin akbar li ngay li ngay aaye bu fekkee nar naa jur weneen ay dangay seetaat na neen noo jaar ba ba li nga bëgg am ta ay woo du am <coughs> wala sa muf dana li wala la wax ci jawar nefis ne wala sa muf dana li sarin akbara kon nag léegi loolu ci boppam moom lañ war a jàng ci moo moo la ci njëkk a dimbale ndax yonent bi sallallahu alayhi wa di moom dafa wax ne innamal ilmu bi taallumi wal xilmu bi taallumi loolu la borom xam-xam yi wax dañ ne xam-xam yaa ngi koy amee ci jàng waaye neex deret yaa ngi koy amee ci jiim jiim koo jiim a neex deret loolu la loolu la xekkam yi wax sallallahu nag mooñ ciy jàng ndax am na boo xam ne dafa wax ne kuntu am si maa rasulillahi anas moo ko nettali anas moo ne am na bis kuntu am si maha rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi burdu najraniyun xaliisul xaashiyati fa adrakoo arabiyun fa jabasahoo jabsatan shadida hatta raaytu safa aw safha aw safhata hunuqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qad assarat biha xaasiyatul burdi min siddati jasbihi fa qaala ya muhammad aatini min maalillah allasi hindaka faltafata ilayhi fa daxika suma amara lahu bi ataa yéen ana su ngeen demande ak yonent bi doxantu nit jekki-jekki rek poñe ko poñe bu dëgër bay seetlu naa ne baatum ngub mi a xaw na koo xerandi bam bam xaw a mel ne lu dagg mu ne ko alali yàlla ji nga jox jox ma ci laa wax yonent bi daal di ree ne daal di yor jox ki ki yor magasin bi ne ko jox ko li bëgg kooku dal googu takk ba kanam boobu am na boo xam ne it sayd ubnu soxnata moo ko nettali jaa sayd ubnu soxnata ila rasulillahi yadlubuhu daynan lahu fa axada bi majaamihi xamiisihi wa ridaihi wa jazabahu wa axlada lahu alqawla wa nadara ila annabii bi wajhin galid wa xaala ya muhammad ala taqdini xaqay innakum ya bani abdilmutalib qawmun mottalun wa shaddada lahu fi lqawli fa nasara ilay homar waynaahu taduraani fi rasihi kalfalaki lmustadir suma qaala yaa aduwallaahi ataqulu li rasulillahi ma asmahu wa tafalu ma ara fa wallazi baasahu bilxaqi law laa ma uhaasiru lawmahu la darabtu bi sayfi rasaka wa rasulullahi yansuru ila omar fi sukoonin wa tudadin wa tabassumin suma qaala ana suma qaala ana wa huwa ya omar kunna ahwaju ila gayri hada minka ya omar an tamuranii bi husni l adaayi wa ta wa tamurahu bi husni taqaadi ishab bihi ya Umar faqdihi haqqahu wa sithu hisriina saahan min tamrin fa kaana haza sababan li islaamihi fa qaala ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yonent bi ne Sayd ibn Fana da koo dab di ko fayu bor bu mu ko amoon te boobu du du jullit moom ne ko fay ma sama bor bi daal di koy poñe moom it xëcc ko wax ko wax ju ñagas ne ko yéen giiru euh, waa kër Abdou Moutalib da ngeen di téye bori jàmbor yi rek du ngeen fay kenn tàng daal koy wax wax ju ñagas Omar daal koy xool bët yi mel ne buqi ko ndax ndax tàngoor Omar daal ne ko yow noonu bi yàlla bi lu tax ngay wax yonent bi li nga wax lu tax nga di ko jëf lii giiñ naa ne bu ma ragalutoon ku ma yedd danaa dagg sa bopp yonent bi di xool di ree yonent bi dal muuñ ree ne teg daal ne Omar ah maa ngi moom de ku ci ne soxla woon na nga dimbalee ko lu dul lii nga wax man de damaa bëggoon nga digal ma ne ma boo amatee bor dee ko fay fayin wu rafet moom mii nga ne ko boo buñ la amaletee bor dee ko fayu fayin wu rafet Omar demal nga fayal ma ko bor bii ma ko ameel léegi te na ko ca dollil ñaar fukki saa ci tàndarma ñaar fukki saa ci tàndarma mooy juróom fukki kilo juróom fukki kilo yi tàndarma ci gëdd gi nga ko gëdd nang ma ko ci dollil loolu mooy dottu si bii laa leen di wax ni ni mu amee solo sago su yonent bi am ak ni mu lijjantile waaye ca la doxe far jébbul daal daal di dugg ci lislaam te fekk doontoonub jullit am na ku ñuy wax ahnaf koo xam ne daa doonoon koo xam ne dañ isaa xadiba xadiba lahu miatu alfin laa yasalunahu laa yasalunahu fi ma xadiba daa doonoon koo xam ne bu meree téeméeri junni nit mer te duñ ko laaj lu tax nga mer waaye moom kenn mu defaxe ba mer Ahnaf la tuddoon sangu moo doon sangu aw nitam ñu ne ko nag waaw yow Ahnaf koo xam loo leet mi man taxalamtal xilma xaala taxalamtuwa min Qays ibn Xaasim Qays ibn Xaasim daal moom ci laa jànge neex dara waaye ñu ne ko nu mu defoon mu ne haysu kaana yawman jaalisan maa asaabi fi majlisihi fa jaaoo lahu bi rajulin muqayyadin yarsufu bil hadiidi wa qaaloo lahu haasa ibnu aqiika qatala ibnaka faltafata ila ibni aqiihi wa qaala yabna aqi aqatalta inna ammi inna ammika wa asata ila rahimika wa ahramta nafsaka summa iltafata ila ibnihi wa qaala qum atliq saraha ibni ammika wa addi diyata ila ummika wa jahis aqaaka summa azanna baada saalika wastamara fi majlisihi mu ne man de li ma def ci kii laa ko jànge xaysum nu xaasim ndax dafa dañoo toog bis moo ñëpp wër ko ay gàngooram yëpp wër ko ñu jéng nit andi ne ko fekk ko ci jataay bi ne ko kii de rey na sa doom ji mu ne teg dal dal fekk doomama kooko kooko mbokkama ko ñu ne ko sa doom ji moo rey ji mu daal ne ceel daal di jàkkaarloog euh, doom ji doom ji nga xam dañ ko jéng bi ñu koy dañ ko jéng ne ko rey na sa doom ji te fekk mook baayam ñoo bokk bay mu ne ko mu daal jàkkaarloo kooku nekk waaye yow lu tax ngay lu tax lu tax ngay rey sa doomi baay ñaawal nga sa bopp tooñ nga sa bopp waaye ana daal di jàkkaarloog doom ji nga xam ne moom la ki ñu bokkal ndey mu ne ko acca gaawal kii jéng sa doomi baay ñuy jéng demal yeewi ko jéng bi gaaw diyee ji nga xam ne moo ko ci war demal wut ko jox ko sa yaay te ta te sa mbokk mooy ngeen waajal ko bu ñu noppee ngeen fekk ñu fi ñuy waxtaane ñu yëgal ñu ko seetal dal googu mu am dabtun nafsi googu am na ku ñuy wax maymunam nu muhraan dafa doonoon koo xam ne da dafa toog moo ki nitam mu di leen berndeel bi leen di berndeel nag mu ba ñëpp wër moo ab jibéeram ab jibéeram ñëw nag yanu ñi eh, eh, supp bi mu leen defaral fa jaatil jaariyatu tahmilu maraqatan xaarra li tuqaddimaha lahum fa xasarat wa saxatatil maraqatu ala maymunam nu muhraan far nag mu fakkastalu supp baag lépp daanu bi mu leen naroon a ah, mu taali mera mera fa xadiba xadaban sadidan wa kaada an yuhaqiba bëgg na ko mbugal waaye jibéer bi jàng na alquran jibéer bi nag a ah, xasbuka xanaa jàngoli yàlla wax ci alquran wal kaadimina al gisoo ñooñu yàlla wax leen ñii wan na mer nii leen yàlla taggee xanaa da nga mu ne ma mu daal mu daal ne wan naa mer mu ne ko wal xaafiina ne naa si moo ci tege di ñiy jéggale mu ne ko jéggal naa la mu ne ko si yuhibbul muhsiniina ci tege di yàlla bëgg na koy rafetal di mu ne ko goreel naa la mer ma noonu la noonu la soppi kon nag bokk na li nga xam ne moo la mën a dimbali ci ci ci loolu mooy loolu mu njëkk a wax bi ci topp mooy ihraadu anil jaahiliina mooy koo gis ko xamut bu waxee wan ko gannaaw mooy deuxième bi mooy mooy mooy mooy mooy bi nga xam moo ko moo ko ko ñetteel déedéet mooy bi ko ñaareel bi ma njëkk a wax mooy lii la ciy musal boo dee bàyyi xel loolu xam mbir mi fi mu mujj daal bi ci topp na mooy i'raadu anil jaahiliina maanaam lu ñu la mën a wax rek gi ngay ginnaaw ki kay wax xamut rek bu ko tontu xosil xafwa waamur bil urfi wa'rid anil jaahiliin jëfandikoo laaye woowu bokk na ci li lay dimbale ndax euh, al alxuraan am na ci isaa xaatabuhumul jaahiluuna qaaluu salaaman ñi nga xam ne ñi réer bu ñu waxee ñoom ñu ne jàmm-jàmm rek da buñ dalee ci seen kawit duñu leen tontu ne salaaman salaaman ñooñu alxuraan da leen tagg ci suratul furqaan kon ci sëñ bi daal ñu jàngal ci nax ju ne wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama qaala al adibu wala xat na nga buñ la ŋàññee te bul tontu na nga mel ne la borom xam-xam moom waxoon ne wala xat amul roxalal la imi yasubbu nii wa axifu suma aqulu laa yax ma romb ku yamaay mu di ma ŋàññi waaye dama koy romb rek ne jubluwuma ci ndax sëñ Tuubaa dafa jàngalewaat ne xamoo ni naqari deret nee na amma hamiyatun wa kasratul xadab wa hiddatun wa dayxu sadrin bi tahab fa hiya min axlaaqi seytaanin lahiin ahaasanal muhiinu minhu kullahiin dawaahu ilmun bi an laa fi'la xaqiqatan rabbin jalla jombulu taral xiddatu mooy taral wa kas mooy siddat siddatu ñoo bokk fi am piri wa kasratul xadabi ak bari looy mer taral mooy naqari deret ak bari looy jombulu ak sa dënn xat sëñ Tuubaa neen yëpp bu la dalee da xam ne jikkoy seytaane la ngay ñaan yàlla tàqale laa ak moom la koy saafara nag mooy nga xam ne mbindeef mii jëfanteeg yow lim la def defu ko yàlla ko jaarale ci moom rek waaye du moom moo jëf-jëf ji boo ko jàppee noonu la nga ca waroon a mer dutoo ko ca mer sëñ Tuubaa nee na garab gi mooy jàppal ne lii yàllaa ko bëggoon a def rek jaarale ko ci kii waaye yëbi wu noonu ba di ma def lii bu ko dee da nga ci daal di mën a mucc ko defee nag gis nga alxuraan it ne tagg na ñi nga xam ne wala sina laa yashhaduuna suura isaa marro bi lax yu marro kiraaman ba tey suuratu furqaan bu rombee buñ rombee caaxaan da dañuy rom rom mu róorul kiraam rek ne cell ku leen ca soow ak ku leen dalee duñ la tond ihraadu anil jaahiliina bokk na ci liy dimbale ci dabtu nafsi ba ca topp mooy def ko sayyiatil xasanata maanaa lu bon lu ñu la def nga nga fayee ko lu baax wala tastawi l xasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsanu fa isa allati baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim waaye nag wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim nee na lu bon lo dee ko jañee lu baax rek buñ ne lee kee dalaa bañit dee ko defal lu baax yow da ngay mujj kala noonu woon mooy mujj doon sab xarit waaye alxuraan nee na nag lu jafe la ku mën a muñ te am cir moo ko mën a def yàlla na ci yàlla boole ndax loolu moom bu ko dee yonent bi nee na ittaqillaa haysu kunta ba tey moom la firi fii wa atbahi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa xaaliqi nnaasi bi xuluqin hasanin rawahu tirmisi wa daaramiyu yonent bi nee na del ragal yàlla foo ne te lu bon lu ne dee ko dee ko fare lu baax ni ngay jikkoon ni ngay jëflanteeg nit ñi de dee leen wan jikko ju rafet ba ca topp mooy nangoo diisoo dana tax nga sabakan bi nga mën koo takk ndax diisoo yàlla da koo bëgg lool moo tax mu digal ko yónnee bi yërante bi ne wa saawirhum fil amri da ngay diisoo ñoom ci mbir yi ida balaxa rayu l mashurata fastain bi rayi nasihin aw masurati xaasimi am na waykat bu ko wax boo dee diisoo rek deel diisoo ku laabiir wala nga diisoo ku takku wa saawir isa saawarta kulla muhassabin labibin aqa hasbin li turshada fil amri boo dee diisoo diisoo la ku ku yaru ku am xel ku takku ngeen mu teg la ci yoon bu boobaay diisoo googu dana tax nga mën a daftu nafs bii ñu lay digal da nga ko mën dana la ci dimbale ndax boo diisoowut léeg-léeg nga gis jàppe loolu alquran di wax nee na mën na laa dal afa man suyyina lahu suu amalihi fa raahu hasanan da nga gis ko xam dañ laa rafet dañ laa péntural lu bon loo loo loo war a jubli mu ñu pe seytaane péntural la ko ba nga teg ko loo rafet te boo diisoo woon danañ la ca mën a wan loolu ndax man ngaa gis faxat yekun ahaduna yaral xasana qataan wal xataa xasanan te fekk boo diisoo nag daa nga ci mën a génn la ba ko ba ko juróomeel mooy sabru wa taqwa muñ boo muñee dara kenn du la dara mu tey bàyyi xel yàlla wa in tasbiroo wa tattaqoo la yadirkum kayduhum shay'an inna allaha bima yaxmaluuna muhit ci sot ali imran yàllaa ko wax delluwaat wax ne wa in tasbiroo wa tattaqoo da yonente bi sax la wax àllaa yow dafa ne wala tasmahunna min alladina utul kitaabi min qablikum wa min alladina ashraku azan kasira waaye wa in tasbiroo wa tattaqoo fa inna zalika min azmi l-umuur yonente bi lor ju bari daañ la ko def ci yéefar yi nga nekkal ci arab yi ak yahood yi ak nasaraan yi ñi ñoo la fi jiitu woon waaye boo muñee te ragal yàlla am nga dogg goo xam ne kenn mënula laa yàqal yàqal dara te loolu sëriñ bi ci loolu la jaar ba dara kenn mënu su ko dara ndax alxuraan ak wax boo ko defee laa yalikum kaydum sayan ñoo mën a nekkal duñ la seeni pexe du la mën a yàqal ba kon nag la ca topp mooy nga jiima xam sariha li mu wax ci ku mer ndax ñun ñëpp kat ku ci ne mën ngaa mere sa sa doom mere sa soxna mere say bokk ndax fu ne la seytaane se mer ci saytaane lay jóge waaye bu boobaa dangaa war a jiima xam lislaam lu mu wax ci ku mer noo mën a def ba ba mucc ana lislaam lu wax ci yonent bi lu mu ñu jàngal ndax ku ne mën ngaa mere fa kayfa yatfa'u al-waahidu minna ghadabahu fa masalan isaa ghadiba al-waahidu minna ala zawjatihi mën nga mere sa doom aw ala ibnihi wala sa soxna wala sa doom aw ala aqaribihi aw asaar aw asaarul xadab ala amrin min umuri si sariha fa kay fa yesa bu asal xadab noo war a def ba mere mi dañ loolu lépp lislaam jàngale na ko de la ci njëkk mooy al istihaasatu min asheytaani rajim foo mere yoral sa kus naan aouzu billahi min seytaani aouzu billahi min seytaani rajim aouzu billahi min seytaani rajim aouzu billahi min bu yàggee mere mi dana dañ ndax euh, Suleymaan mu surat nee na toog naa ci yonent bi kuntu jaalisan ma nabi wa rajulaani yastabbaani fa aaduhuma ihmarra wajhuhu wantafaxat awdaajuhu fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inni la ahlamu kalimatan law qaalaha dahaba anhu maa yajidu maa yajidu damaa toog ak yonent bi ñaar di fa xuloo ba kenn ki daanaka e, nenk tang yi moom la war a moom la wolof di wax nenk tang mooy pegg yi pegg lex yi nga xongu coy naar bu meree noonu lay mel yonent bi ne xam naa baat boobu bu ko waxoon rek mer mi dañ ñu ko bu yonent bi bu mu doon mu ne auzu billahi mina bu ko bu ko doon wax rek mer mii ko dañ leemu mu dañ ana beneen bu yonent bi jàpp jàngale mooy noppi as sukootu boo meree bul noppi bul wax lox loo wax rek mën ko koo rëcc isaa xadib te iyaaka wal kalimat uxruj wala ba ko ñetteel mooy uxruj watrukil mooda fi nga meree gaawal génn yonent bi nee na it bu la fekkee nga jàppoog demal ci wana wa dem jàpp wala nga sangu farata sangu ca ngaay lu mel li ñuy sangu ci bis ndax mer ci saytaane ci sawara boo ko sottee ndox ñaari day fay loolu la yonent bi jàngale moo tax sëñ Tuubaa jàngal ñu nag nee na usturil ba mastataata bi sumtin ina fi sumti raahatan li sumud ayib yëpp dee ko suturaal sa ayib bopp lépp ci noppi ndax noppi lépp neen noflaay la ci ki noppi waccali sumta in hayita jawaaban ruba xawlin jawaab wa fi sukut bu fekkee lottu nga ci tontu ki nit xulóogi yow wax wax wax lu ko neex neel ci yàlla lag bañ koo tontu nee na sëñ Tuubaa nee na bari na wax yoo xam ne tontu la mi ngi ci noppi boo noppee rek kooka day gërëm sëñ Tuubaa nee wax nañ ne sëñ Tuubaa ko nett ci nax ju ne law kaana wax nañ ci xikam ne law kaana al kalaamu fiddatan la kaana sukuutu saaban bu wax doon wurus bu wax doon xaalis noppi wurus la si yonent bi daal di wax ne isaa xadiba ahadukum wa huwa qaayimun falyajlis fa in zahaba anul xadab wa illa fal yaltaji rawahu abu daawud wa ahmad yonent bi neen ku mer bu la fekkee taxaw toogal bu dañut nga tëdd abu daawud moo ko nettali yonent bi ko wax bu ba cee ñeent ba ko ba ko ba ko ba ko ba mooy ñeenteel bi mooy mooy ñaan ñaan yàlla di ko bët bu nga di ko ñaan di ko naqari deret ak mer dema ci dimbale ba bët bu set nga nga jàkkaarloog yàlla ne ko nang ma dimbale ñe may ma lii an an adduhullaaha tabaaraka wa taala an yarsuqani xilman xilman wa ilman wa yaqinan wa sabaatan yàlla may mag leet ma neex deret may ma xam-xam bu yokk may ma ak kóoluteef sama diggante ak yow téer ma samay tànk ñeent yi ku xëy war nga koy ñaan yàlla boo ko defee nag la la juróom-benn yooyu boo ko boo ko amee rek dabtu naf si daal di yomb te dangay boo amee dabtu naf si nag da dugg ci laaya woo ma doon li yàlla tagg naan leen wal kaasimiina al xaysa wal xaafiina ani naasi wala yuhibbul muslimiina muy benn ñaareel ba dangay faatal say noon occasion maanaam pose lañ koy wax ci wolof ab nos ab nos lañ koy wax ak posé da nga da nga leen di faatal nos boo xam ne naroon nañ la cee reetaan ak doon la ci muñandiku bi nga bañee bi nga dabtu sa noon yooyee dañuy rus bu dee lu naqari woon lislaam yi nooni lislaam yooyee dañuy rus kon li ci gën a dimbale mooy na na ngay ngay teetal ba ko ñetteel mooy da teetal sa bakkan rëccu bu fekkee def nga lii ñuy wax dabtu nafsi dana la jural loolu ma la wax danga nga dana la jural nga teetal sa bakkan rëccu ndax li ëpp boo ko defee da nga ko rëccu bi nga tab dabtu nafsi nag teetal nga sa bakkan rëcc gooyee nga lala naroon a dal kon nag li ma koy tëjee mooy lii yëpp sëñ Tuubaa tënk na ko ci ñetti way rek wa minhu xaful war mar i amman zalama wa misluhu i'taa'uhu man harima nee na bokk na ci teggin nga jéggal ku la tooñ ku ne ku xañ nga xam ne xam nga ni kii bu doon séddalee du la jox yow nga di ko jox wasilatun li kulli sax seen xataan koo xam ne wóor na ne daa dagg sa diggante ak yow wóor na leen ni ñu ngi lay wax ne la dalaa bañ dee ko jox wax dina yow sëñ Tuubaa ko wax wal birru aydan fanta bi wa tabian deel topp ak di defal njekk rawatil nag sa waye ji de deel topp li ngay toppee sa waajur dee ko dee ko baaxee ci ñaneen ñi waaye nag bu dee ci waye ji baan yi yaa axi fi rahimi wa walidin walaw li sirkin yant bi birru googu mu wax nag muy topp topp ak jokkuk bokk ñaar yooyu nee na dañoo topp ak jokkuk bokk moom dañoo war ci bu dee ak bokk la wala muy sa baay donte sabaay baay du jullitit topp ga ak jokk ga dafa war kon loolu moom lañ bëggoon a indi waxtaanal leen ko yàlla yàlla def ci ñun ak digg ak topp te eh, jariñ ñu te def ci réew mi jàmm te tàppe xol yépp te ndigali Sëñ Tuubaa yi mu ñu digal yépp ñu mën koo jariñoo te te topp ko buñ ko jariñoo danañu wóor ne liñ bëgg lépp danañ dajeeg moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala